asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuy borom yàlla yi kese barke mal xiyaamal akbar gars yi kontaan naa ci abonnement yi zem leen commentaire leen partagé leen YouTube bi moom nii laa soxla barke mal xiyaamal akbar mais gars yi démb face to bi amoon ci diggante Sa ak Eumeu Sène neex na neex na loolu Sa ñëw na tuus wax la muy wax Eumeu Sène ñëw na tuus wax la muy wax mais lépp neex na bàcc ko mal xaamal ak ba man li mu ci gën a doy waar ca reetaanlu muy diggante Tafa Gueye numéro <laughs> numéro 2 ndeysaan ak kan nguur sa bu noonu làmb ju nar a neexe ngi noonu làmb ji nii la wan man soo am na dem moom face to face amutoon wan man soo la bëgg la xaqataay barke bal xaaba lakk bar ba sëy bañ wecceeku ko am na waaju ma dendal dafa reetaane reetaan ba bakkan bi ne tegg tegg fële macha may wax la du waxee keneen <laughs> ma ni ko ku baax xëccata sa bakkan ma nga monte li lépp ci jàmm ji la mais beneen bi gaa yi la ma waxoon rek làmb à la télé may leen nu ko ñuy seetaan làmb ci télé bi mais làmb joo xam ay parcours dugg na ci barke mal xaam la kabar bu ngeen defee làmb parcours làmb ji day dee loolu laa leen jox beneen bi yow Sa Thiès waxal say fan sa ni leen non violence amul amul violence yow Eumeu Sène waxal say fan sa ni leen non violence amul violence làmb ji kaf agré la forek barke mal xaam la bu jeexee jeex na ku gañee ku mën a gañeet nay sandu yàgg ba nga jël coupe bi naan da nga koy yóbbu bitim réew fii lay yem loolu kese la lillaahi wursuli ak ko mbokk nag barki yombal xaamal ak man na rafet na la lamb ji di rafet tey neex su ne sport la sportu tubaab yi danu riis mais pour nga dégg non violence sax du bëri violence day am mais du bëri mais ñun yuru lu dul sport boo xam ay fëggantey kurpañ la barki yombal xaamal ak man te man li ma gën a jeexal ca lamb ji leen ñaari mbër dañuy bëri di fëggante kurpañ arbitre ba taxaw naan bëriwu leen kenn ci war a rëcc la fëgg kuu bi arbitre bi barki yombal yuru ku baax yuroo ndox wooy moom yuru ku baax yuroo ndox wooy yuru ku baax yuroo ndox